Bambaly moo ñu rejoindre ci ci plateau bi nga xamante ne mooy spécial Korité bi ñu kontaan di ko recevoir ndax moom xale la waaye nag euh, mi ngi fi wàccee ba zéro son bu mu génnee it lay doon Bambaly bienvenue sur le plateau kontaan nañ trop pour recevoir la fii nii. jërëjëf waay. Mhm. Mado yaa ngi koy xool rek xale la de sama la. di kontaan bu baax ci accueil bi <laughs> maa ngi nuyu Sénégalais yëpp. Mhm. di nuyu suma papa Youssou Ndour. Mhm. ah ak waa kër gi. ak téléspectateurs yi nga xamante ne ñu ngi seetaan. Mhm. di balloo ak askan wi ak képp ku nga xamante ne ah yaa ngi suivre émission bi. Mhm. di leen ballu ak di leen wax déwénati leen. Mhm. yàlla defal ñu jàmm. ah ñi nga xamante ne nag vraiment ñoo nekk ci hôpitaux yi. yàlla na leen yàlla yëkkati. ñu delloo ci la ñu nekkoon ndaxte métti na trop ñi nga xamante ne caabi da leen a féete ginnaaw xam nga yàlla na ñu delluwaat. ci la ñu nekkoon vraiment euh, di remercier bu baax ñi nga xamante ne mooy suñu soppee ñi ñuy taxawu boobu ba léegi mm-hmm. duñu ñu suivre partout dans le monde di wax jër ngeen jëf Kalza Ndaw aussi tamit maa ngi koy ziare bu baax mm-hmm. di wax jaa ngeen jëf kontaan naa ci accueil bi alors ñoo gën a kontaan ci recevoir la ñun artistes yu mel ni yéen la ñuy bëgg di gis tout le temps di jëmale musique bi kanam. Mm-hmm. Euh, tout à l'heure Yoro Ndiaye daf ñu wax koor gi moom naka la ko dundee entre écriture composition yow koor gi ci loo nekkoon. Mm-hmm. waaw honnêtement pour dire vrai man du may faral di bind lu bari man en général su ma nekkee biir cabine laay gën a mën a inspiré wu wala may mu fekk ma ci. leneen non rarement. soo ñaari yoon laa mos bind. sinon comment ça se booy booy booy composé wooy. composé mën naa ne méttiwul waxtaan bu ñu suukar la rek. waxtaan waxtaan bu ñu suukar <laughs> la rek. xam nga tey ku ci nekk am nga sa vie ni nga koy dundee. li la ciy dal. xam nga da nga ciy jëlee ay quelques phrases yoo xamante ne quelques mots ci xale yi di fooy rek. gis nga man kii may leen ko kii bëgg naa ko de. yow bambali waxtaan bu ñu suukar. waaw. léegi yow euh, ban moment ngay suukar say yëf yow. ban moment exactly. waaw suukar bi mooy mélodie yi ngay dégg. moo tax moom laa lay wax. harmonie yeeg mélodie yeeg neexal ko. am na nooy kiiwee sa baat bi am na noo koy defee noonu daal. Euh, am na ni nga koy neexalee dafay may daf may jox euh, ma pender jox ma coon. jox ma waal yi daf dafay xaw a jaxase dafay xaw a jaxase sama xel en yow tey euh, si ñoom ñett tey neexal bi nga neexal baat bi fan la jógee ko si ñoom ñett. honnêtement pour dire vrai man mosuma ko nëbb sama idole Papa Thione la bu bëggee ay way wala xam nga bu ma nekkee nit koo xamante ne dama compliqué ci musique ci ay mélodie loolu mën naa ne Papa Thione la ndax moom ku ko xam-xam ko ci ay harmonie sama papa aussi mooy Mapenda Seck moo ma jur moom nag yàlla dafa dogal daf ma assisté ci lu bëri ndaxte chaque fois buy joué xalam wala di joué ay affaires yoo xamante ne du du du du musique mais xalam la quoi musique traditionnelle dafa may indaale mu mën cee jëlee dara xam nga tout le temps nag mu may jéem wax naan ma fexeel daal góorgóorul ba buñ la yeewoon quatre heures du matin ne la wéyal teg dara nga mën a teg dara. kon yow tey mun nañ la xaar même ci volet traditionnel buñ la ci xëccoon tamit di nga mun a kii ndax moom la ci nañ la taataan daanaka. Ah, loolu moom kaay ma xamal leen. xoolal. jarul sax muy sori jarul sax wax xoolal jarul sax muy sori. da ngeen may utal xalam rek. rek ñu doon ko fi mu daanu loolu nag c'est a programmer. macha allah jotaay boobu dina am live lañ koy def. mais wax nga wax nga Thione Seck mm. wax nga sa papa mais Bambali Wally rek ngay topp sa amul ci Wally ñëwaat ci am ci peu. non Wally mën naa ne c'est koo xamante ne euh, depuis bi ma nekkee xale la. depuis bi ma nekkee xale boobu Wally wayagul man bi may nekk école. bi Wally génnee premier clip ci laa gënoon son suñu école parce que boobu dañ doon wax xam nga jamono ji sax dañ naan Wally euh, euh, euh, mais jamono jooju dañ doon wax doomu coon sekk bi doomu coon sekk bi temps yooyu nag du ma ko nëbb suñ ma nuroo léegi Wally moom damay énervé damay mer ala <laughs> ah, parce que dama dama naan maa ko mais fu mu toll nii nii moom non fu mu toll nii moom instant bi moom xolo xoolatuma sax but en fait ce que j'allais te comme léegi bi ju mi ngi koy wax artiste bu ñëw dañ leen di laaj la plupart weeru koor je pense que ci ngeen di gën a teru pour mën a def li nga xamante ne moom moo di ay créativité wala génne lenn lu bees tey buñ la doon xaar ñi ngi jëm ci li nga xamante ne dem ci korité bi koor koor gi passé na lan la fan si war a mën a xaar ci loo xamante ne war nga leen ko mën a jox ci lu bees waaw fu mu toll nii gannaaw tout récemment génne nañu benn tube bu tudd namm naa la. effectivement ah, euh, produit par The Best Production. Mhm. Euh, ñu génne ko macha allah sénégalais yi apprécier ko. jël ko seen mhm. bopp comme li may wax temps li gën a jafe mooy sénégalais yi mën nañ xam ne waykat nga mais ñu accepter la. Mhm. xam nga tey boo amee chance boo génnee dara def dara ñu jëlal ko seen bopp. loolu dama leen ci sant ñun nag. voix bi rek la ñu yore. ah ak di ñaan. Mhm. mais ñoom vraiment nit ñi taxawoo xam nga euh, mooy waral tout le temps ñuy jéem a bëgg gën yokk bagage yi. Mhm. fu toll nii mën naa ne son yi ma def yoo xamante ne paregul bari na. mën nañ xaar album ana daanaka. waaw maa ngi doon xool sax est-ce que du ma génnee cinq son yoo xamante ne. xam nga kañ noonu. cinq sons yoo xam te ne dama koy enchaîner rek yàlla yàlla xool. yàlla xool mais Bambaly est-ce que looloo war style bu bees bi. parce que dañu jékki-jékki woor woori nga ñëw may ñu ay rasta. waaw nag damaa nag boo leen seetloo. <laughs> naa gis de. gëj naa génn de. gëj naa gis nga sax nag. waaw jërëjëf. longtemps yow yàlla dogal na leen dama lay suivre. man man dama lay suivre. man yéen nag laay suivre loo leen demee lan moo waraloon raar bi après jékki-jékki ñëw rek indi changement de style est sons yeeg six yooyu ngay ñëw may ñu ko noonu lan moo waral euh, euh, maa ngi waajal daal lu doy war. Mhm. loolu moom xam naa ko. Mhm. parce que xam nga musique. mën naa ne ñun ay ah, artistes lañu. artiste nag boo ko waxee laal nga comédien bi laal nga woykat bi laal nga ki nga xamante ne sax mooy def ay tableau. xam nga artiste. Ah. dafa dafa maanaam c'est c'est un milieu boo xam te ne dafa vaste bëri na ay affaire yu bëri yoo ci mën a jëlee. Mhm. tey nag mën naa ne ñun ñi di def musique. dañuy xool loo xamante ne rek xam nga neex na nit ñi ñu def ko. Mhm. loolu kese la. son bu TikTok aawul wala. ah, ah, ah euh, euh, moom non moom je suis pas trop nag di def son di gaaruwaale. non pas gaaruwaale mais. chanson de kañ sa bopp. Euh, chanson de wax yow la kenn pas forcément gaaw waale. waaw pour l'instant nii nii nii xam naa ne dama yorgul xaalis ndax am na yoo xamante ne boo koy def <laughs> xam xaalis day yokku fit. am na yoo xamante ne boo koy def. Uh-huh. foog nga toog ci lu wóor. Mm-hmm. boo ci toogee nag moom ci ngay gën a xam nga ci ngay gën a ñeme. wax la saf wax lu ma saf. <laughs> sànq ci sa biir wax yaa ngi wax nga nekk euh, boo defee dara il faut pour gars yi adopté ko sénégalais yi dañuy adopté pour yow lan moo war a euh, artiste la war a def ba nga xamante ne yi wala public yi dinañ ko adopté la. bon pour commencer musique man pour man boo koy def il faut nga am amour bi ba pare. il faut nga bëgg koo pare ndax boo ko bëggee tey jii moo lay moo moo lay jaral. nga ciy mm. dund expérience bu bëri te bañ a yàkkamti. ndax mën naa ne bon c'est juste un benn remarque bu ma def mm-hmm. mooy ñu ci bëri fii suñu génération euh, li leen xaw a sonal mooy dañu xaw a yàkkamti mais pour man euh, xam nga jël sa temps la mm-hmm. xam nga positiver xool mm-hmm. li nga mën a jox nit ñi loo xamante ne mën nañ koo mën nañ ko arab benn façon boo xamante ne du doon luy heurter xam nga te man musuma dugg ci genre détail yooyu comprendre nga mais ça vient naturellement amour la lu jógee ci xol nag mooy jëm ci xol comme ni ñu koy waxee amour la rek amour la rek mais mais li nga xamante ne nag ñi euh, ñi ñoo koy jël di ko déglu di ko bëgg wala di la ci apprécier loolu yàlla la loolu moom mm-hmm. kenn mënu ci dara mm-hmm. ndax di nga jël ay millions def ko ci produit mm-hmm. mu génn kenn du ko déglu ngay fooye benn mbir ci sa téléphone génne ko ñépp bëgg ko loolu moom kenn xamul lal ñun dañuy def rek waaw l'essentiel na leen neex mais ana ah? big mama <laughs> coow li coow li bi xanaa sama xel nga dugg mais loolu clip la woon non clip la woon mais man man man man toog naa fi commentaire ba félicité leen naan sama yaay vraiment seen amitié bi xam nga xamoon naa ne dañoo bëggante xëy na uh-huh. xamaguñ ko woon ñëpp ci wax wax nekk da ngeen ñuy fowee nekk buzz la woon mais ngeen di fowee xam nga ne clip la mais après ah, après loo gisaat yow non après gis naa ne clip la ah da nga loo gisaat ah, yaa ko wax de <laughs> Ah, waxaguma yaa wax. Ah? mais est clip kese la woon. seen relationship dafa xaw a kii yéen ñaar de ah, mais clip la woon ah. mais est-ce que. moom ni mu tontoo nii. dara am na est-ce que. mais xale bu am fit la dinañu wax. dafa am fit moom. Bambaye di wax yow la xam nga man sax aw ma droit poser question. mais dama ne. yéen après clip bi dafa am leen loon gis. non c'est que ni ñu ko posé nii. moo tax suñu xel dem. léegi yow wax journée damay góorgóorlu ba journée duñ ma gi journée. guddi rek ngay génn guddi rek. te jamono yi ba ma defee lox yi dama gën a am jàmm ndax duñ ma xàmmee. mbaadu mais léegi xàmmee léegi gën a xàmmee ndax léegi waali rek nga indi. jaar naa tee TFM léegi teel a ma ñëpp di xàmmee nag léegi. <laughs> yaa ngi ànd ak euh, Mbaye Madiaga moom tam nañ ko déglu. waaw ma koy nuyu moom mu doon un boo xamante ne maa ngi gis lu muy def vraiment mu nice trop. Mhm. moom fi mu nekk gars yi vraiment gëm nañ ko. ah, ah jox nañ ko bopp macha allah. ma koy ñaanal ah carrière boo xamante ne lépp lu nekk sa xol yaa ko xam yàlla na ko yàlla defal. amiin waaw mon frère. ma vraiment je t'apprécie beaucoup. je pense que balaa ñu tàmbali waxtaan bi ak moom ñu bàyyi Bambaly dem sur scène. pour euh, pour pour pour pour bégal ñu. ay ca des na lool moom loolu moom da leen di def kon may wax sànq rek. préparer leen nag live bi ak xalam bi. ak xalab ñu lal lal lal basang dafa yàgg ànd ak baayam Mapenda ah? Mapenda dàq loolu la ko nee na nag mu mu mu taataan ko yar ko bu baax ci li nga xamante ne moom di musique traditionnelle mën a woy ma ne ko loolu nag xam naa bàyyi rek nga koy diis su boobaa ngeen organiser ko Bambali mooy dem ah. dañuy lal basang rek teg ataaya lakk lu dibi kese ko lalal basang boo Bambali sama rakk ji <laughs> waa sa frigo vraiment am nga concept di nga liggéey si nii. <laughs> ñu déglu Bambaly va mu proposer ñu donc benn titre et en même temps ñu continuer di leen jox euh, seen i ndéwénal ci numéro téléphone yi 88 676 05 05 donc Bambaly day woy su woyee ba pare ku may njëkk a jël ci ligne bi naa ko jox ndéwénal bu duun c'est parti. demain lendemain Korité mu ngi jëm fi nga xamante ni mooy euh, Dream Club voilà Dream Club lay jouer euh, lendemain Korité maanaam suba euh, di soirée boo xamante ni entre cinq mille ak cent mille en ne ñu koy amal ca fi nga xamante ni mooy Mbour Bambal dañ lay joxaat micro bi affiche baa ngi noonu ban message ngay jox sa fans yi ak sénégalais yi lay seetaan. waa vraiment di leen remercier waat encore une fois di leen wax ne kontaan naa gis naa taxaw taxawaay bi di leen xamal nag. comme que tey la korité mhm. suba incha allah waa Saly ñoo xewle waa Mbour maa nga jëm RDC. RDC waaw foofu nag entrée unique cinq mille francs la salon de quatre personnes c'est à cent mille francs ah, ah. waaw ba tax na maay jox dig daje ñëpp di leen wax ngeen ñëw ndaxte dina doon retour bu am doole ndax dama préparé ay morceaux yu doy waar mhm. am na yoo am na morceaux leen fàttali démb ak ay surprise waaw ay surprise yu bëree bëri bëri incha allah demain uh-huh. biir RDC à Saly mu ngoog ah. merci d'être passé nous voir kontaan nañu Bambali ñu euh, ñaanal ko bu baax ah, muy continuer di bégal sénégalais yi ascension bi xam nga loolu tam c'est très important donc Bambali Seck demain euh, mu ngi nekk fi nga xamante ni mooy RDC Dream Club euh, Mbour ñu joxewaat ay ndéwénal